xam ci moom daal mooy c'est un travailleur maanaam kat la euh, Ndiaye il n'hésitait pas à combler un vide malgré l'expérience ak notoriété bu mu am ci métier bi ak journaliste bu mag bi mu nekk il n'hésitait pas à combler les vides loo tax souvent da nga boo la xoolaat sax da nga naan bëggul télé non bëggul télé de parce qu'il comblait trop de vides muy ci ay émissions yi doon am ci télé bi mais mieux dama ko seetaan benn jour dimanche muy def journal mu ne non Ndiaye ak Euh, dayo bi mu am ci journalisme la moo tax muy liggéey dimanche li xale yi ñoo ko war a liggéey mais loolu dalay woon que ne euh, ni mu mel ci liggéey la ñun ci liggéey rek lañ ko xam ci conseil lañ ko xam ci jox respect nit lañ ko xam et dafa def benn jour lu ma marqué daf ma dégg may wax ci rajo bi ñu dajale laan bi mun ma Zeka yow barki de maa ngi lay déglu rajo mais je savais pas que ne tu avais amoon nga charisme bi ci rajo mën nga def lii yow war nga mën a sori ci rajo ak yeneen ak yeneen donc loolu mooy humilité ak expérience bi mu am yëpp mu dégg man xale bi may def loolu mu ñëw mu reconnaître loolu wax ma ko encouragé ma ci donc loolu rek lañ ko xamala ah, ci liggéey lañ ko xam ci dëggu ci ci ci jaar ci digg di wax dëgg loolu lañ ko xamee euh, mu doon défendre Sénégal nag un grand défenseur du pays et parti il faut que ñu xam ko ko xam ne daan toog ci ci ci ci rajo beeg télé bi di jooy li nga xam ne moom la askan yi di jooy seen kër mu leen koy jooyal di ko défendre euh, di di di di défendre ay ay ay nit en tout cas daal euh, c'est c'est c'est avec beaucoup de tristesse et de regret moom la ñuy am fu mu nekk nii. ñu gis ne anima euh, émission yu bëri yu mu doon animé euh, dafa nekkoon émission yoo xam ne da doon jege askan bi euh, lan nga xam en tant que moom être humain mais c'est c'est un être humain ah donc parce que mooy aspect communautaire boobu nga xam ne moom amoon na ko parce que si on se souvient de ces émissions émission Sunugal li réew mi ak yeneen ak yeneen tu vois que même depuis mu feebar sax émission yooyu pratiquement matul parce que pratiquement moom li mu ci li mu mën donc c'est c'est c'est un homme de terrain Ndiaye c'est un homme terrain dem na fu nekk ci Sénégal pour pour def émission dem na fu nekk ci àdduna bi pour def émission donc euh, nit koo xam ne dafa am aspect humain bu doy waar bu nekk ci moom donc euh, voilà nit ku humble daal ku modeste ku wàccee boppam koo xam ne il était très polyvalent c'est-à-dire il était très polyvalent dans le métier et il pouvait voir de loin certaines choses yoo xamante ne dina ko dénoncer rapidement euh, c'est un journaliste quand même c'est un éminent journaliste qui est parti ñu gis ne euh, d' après xibaar yi ñu jot depuis démb ces dernières volontés mooy ñu indi ko Sénégal ak contexte bi euh, lan ngeen di ñaan yow en tant que euh, animateur bu nekk Sen TV ak collègue lan ngay ñaan pour que nguur gi def ko mu ba mu war a mën a dellu Sénégal ci njabootam. Euh, bon effectivement écoute euh, c'était ses dernières volontés et c'est mieux même ñun ñëpp suñu volonté la dëgg la fu mu nekk nii la situation est un peu compliquée mais il toujours des décisions yoo xamante il faut les prendre quand il faut les prendre lii c'est Ndiaye état bu Sénégal dañ ko ameel Ndiaye le Sénégal doit cet hommage à Ndiaye donc li gën a li ñuy ñaan mooy état bi dañu def tous les moyens ci vol spécial ñu jëli ko indi ko jox ko njabootam ñu jullee ko denc ko ni ñuy dencee jullit. ci anam yu mu gën a ñu dëjal ko même si fu mu nekk nii ñu ngi tere rassemblement au moins quand ñu jox ko njabootam ñu suul ko ci nu mu gën a denc ko ci nu mu gën a mais surtout ñaanal ko c'est important na ko ak parce que Ndiaye jàkkaarloo na fi ak ku il faut dire Ndiaye jàkkaarloo na fi ak autorité donc parce que xam nañu rôle bi ñu doon joué ci Sénégal. depuis démb sax gis nañ témoignage autorité yu bëri. effectivement important parce que xam nañu rôle bi ñu doon joué ci Sénégal parce que autorités yi à un moment donné ñoom ñooy topp ci journaliste la woo naan la jël ma émission dama bëgg a visibilité donc on connaît donc autorités yooyu nag tey nañu rendre la monnaie à Ndiaye nañu rendre la monnaie au peuple sénégalais ñu won ko ne que tu es parti mais duñ la bàyyi donc ñu ñu ñu ñu sa dernière volonté ñu jéem a jéem wut le maximum niñ ko ko defalee incha allah. Zeka duñ la bàyyi te laaj la est-ce que am nga benn anecdote ci Ndiaye ñu tëjee ko. anecdote euh, dañoo dem Tivaouane bi ñu bi ñu bi ñu demee Tivaouane gàmmu Tivaouane foog nga y a deux ou trois ans de cela ñu yegg ñoom ñu am problème bu invité boo ci plateau quoi léegi mu gis ma may jaaban mu ma se gaa yow la jaay jaaban ma ne ko non maa ngi bokk ci cellule Zawiya Tijaan yi loo soxla woon mu ne ma lii ak lii laa soxla woon ma ne ko Ndiaye loo soxla Tivaouane wax ma ko xam nga ma ma ma ci saa si ma indil ko invité c'était à 30 minutes du plateau ma indil ko euh, benn invité bu mag mu def émission affaire bi mu pare mu ne ma non Zeka nag bis mi ngi tey jox naa la te respecte et je pense que biñ ñibbisee aussi wax na ko fépp nee Zeka a joué un rôle capital ci suñu suñu bi passé donc euh, voilà euh, et c'est c'est c'est c'est toujours un plaisir de de de côtoyer ces genres de personnes là donc euh, dañuy dañuy dellu rek ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla yërëm ko xaare ko aljana bàyyi loxo ci njabootam bu fi bàyyi yokk leen xolu muñ c'est important donc c'est c'est une perte quand même c'est une grosse perte. merci DJ Zeka. jërëjëf jërëjëf Amil jërëjëf à tous tous nos les internautes de Dakar euh, net et puis di la encourager aussi ci liggéey bi di encourager tout le monde encore une fois euh, ñu ngi jaale njaay Sénégal yëpp parce que Sénégal bu nekk mën nga ko jaale sa morom ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp et puis di di masawu njabootam bu baax a baax a baax encore une fois di ñaan yàlla état bi taxawu que qu'on nous ramène njaay ici au pays ñu denc ko ci mu gën a rafetee merci beaucoup jërëjëf.